jërë ngeen jëf euh, ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen ngeen ñu fari seetaan Yeumbeul Vision TV euh, ñu seet woon sëriñ bi fan yi passé coow li bëri woon na bi mu waxee ci Balla Gaye 2 ak Boy Niang ak xam-xam bi mu mu nekk mbir yoo xamante ni bàyyi na ci xel bu baax a baax mu nekk mbir yoo xamante ni ñëpp ñu ngi koy laajte ba xam loolu mën na nekk te dan koy bàyyi mu leeral cheikh bi ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar yow tamit di jox sa wàccuwaay di nuyu mbokk yi. Euh, kenn ku ci nekk foo man di nekk rek maa ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Hmm. fan yi passé jaar nañ fi ñu waxtaanee combat bu am solo mu nekk diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang ñu war a waxtaanee tey Balla Gaye 2 ak Boy Niang aussi ñu waxtaanee Reug Reug ak Sa Thiès mu nekk combat yu am solo Cheikh bi dem signature amoon na noo ko gisee balaa ñuy ñëw ci mbirum faj beeg waaw alhamdulilahi rabbil alamin Euh, parce que comme ni ma ko doon waxee rek ñun yàlla daf ñuy xamal euh, diggante Balla Gaye ak Boy ñaa làmb jooju dafa teel a bari mystique mystique bi nag ci côté Balla Gaye la actuellement nii fii may wax ak ay yow bu doon làmb ji suba la Balla Gaye la ñuy daan parce que dañ koo jekku ci mystique. su doon làmb ji suba la Balla Gaye la ñuy daan. dañ koo jekku ci mystique. actuellement fii may wax ak yow ndam li mi ngi ci loxoy Boy Niang daf ko gën a pare fii may wax yow ci wàllu ñaan. ah sëñ bi yow bi paas bi ñu ci waxee coow li bëri woon na ci commentaire yi de. waaw ñun nag loolu noonu noonu la ñu yàlla bindee ñun ñaareel ginnaaw yàlla daf ñuy wan lu ñëwagut lu ñu wax rek ñu xamul danañ wax mais yàgg-yàgg fi muy mujj mooy ñëpp danañ teg seen bët ci loola. Euh, fii may wax yow waxuma ne boo ñaar dina ko ja mais buñ bëree woon suba suba suba boo ñaa day daan Balla Gaye parce que am na am na am na fu mu ko jekku jekku na ko daal. maanaam Balla Gaye actuellement pareegul. bu doon suba la combat bi kon daf koy daan. Balla Gaye nag gën a defaru loolu laa koy digal bu baax a baax nag gën a defaru bu mu xeeb benn yoon booy ñaa bépp sarax buñ ko wax bépp sarax buñ ko wax moo xam bu ndaw ak bu mag naka fonk def ko. su ma déggee dafay mel ni kon Balla Gaye de ngi ci guddi gu bët sa actuellement jekku nañ ko actuellement jekku nañ ko si Messi jekku nañ ko ci lépp jekku nañ ko ci Messi waaw lu foofu laa ci mën a yemaale. Boy Niang 2 ñime gi mu ñime Balla Gaye 2 dañ koo déey wala dafa am lum jàpp wala. waaw luñ naa xam nga olof def ne ku ñime dañ la dee mais booy Niang tey ni muy waxee ak Balla Gaye nii moom am na confiance te am na timit fu mu ko téye parce que waxoon naa la ko ci ginnaaw nee naa la làmb du doole kese euh, ni nga war a sonnee ci entraînement yi nun nga war a sonnee ci ñaanlu waaye fii may wax ak yow booy Niang moo téewaale combat bi ci loxoom. Balla Gaye 2 tegtekaayam bi mu def ba booy ñaanee ko dama lay laal force mu ne ko bul ma laal ba booy ñaar ñime ko taxaw ci kanamam ci ay xefam mel ni Balla Gaye dañoo téye làmmeñ bi wala dañoo téye yi. Balla Gaye dañ ko jekku wallaahi watallaahi dañoo jekku Balla Gaye guddi yi may wax ak yow. ah sëñ bi boo demee ba waat ko moom mënatuñ cee teg dara. waaw ñun du ñuy waxantu wax wax naa la ko fi ay émission ñun ñun yàlla daf ñu dimbali du ñuy waxantu te lépp lu ñuy wax rek. doomu aadama yi di ñuy seetaan lu ñu teg suñ bët lay doon. léegi jékku bi ñu jékku Balla Gaye 2 ndax Balla Gaye mën na see génn. waaw waaw ñaan lu mu mënut amut xam nga làmb moom nii lay def dama ne la comme tey guddi gi ñu dafay eh, face à muy démb wala tey jii bu doon combat bi booy ñaa moom moom combat bi mais nag ginnaaw combat bi des na Balla Gaye bu defaroo mën na mën na gañe combat bi. léegi jekku ci ban côté mystique wala doole ji moo fa nekkul wala. waaw mystique la rek mystique la parce que nit buy entraîné ba ca dina am doole mais actuellement dañ koo jekku ci mystique dañ koo jekku ci mystique. actuellement nan la mën a def pour génn ci loolu. gën a gën a gën a fonk ñaan rek bu dafa bu gënee dafaru parce que dafa am loo xam ne moom kenn du ko ko waxal xam na ko xam na nu ñuy bëree loola moom yàlla dogal na xam na ko. mais na gën a fonk boppam gën a gën a bàyyi xel entourage am gën a dafaru ndax Balla Gaye dafa am lu koy yàqal parce que gis nañ ne Balla Gaye 2 làmb ji bokk na ñu fi ëpp mystique. waaw làmb na dafa xaw a compliqué dafa xaw a compliqué lool lool lool waaye daal actuellement li ñu mën a wax ci loolu daal mooy moom Balla Gaye na gën a bàyyi xel boppam nag gën a defaruwaat waaw foofu daal lañ ci mën a yemaale incha allah. loo ko doon boo ko doon diggal. tey jii pour mu mën a génn ci jafe-jafe yi xam moom moo euh, moo ne ci moom ci jekku bi ñu ko jekku loo koy dikkal xam nga waxoon naa la ko ci ginnaaw semaine ci kanam nee naa la bu mu xeeb benn bu xeeb benn sarax buñ ko wax benn sarax buñ ko wax bu mu ko xeeb te ñun combat boobu yàlla xamal nañu euh, kan moo war a daan waaye nekkul loo xam ne dañuy toog nii wax ko waaye heure bu jëree wax danañ ko wax mais nag di ñu wax kan moo war daan sëñ waaw li ma wax moom instant bi li ma ci mën a wax mooy actuellement moom Balla lañ jekku na defar toogaayam ah, waaye bu demee ba jege ginnaaw làmb moom day def nii day def nii bu demee ba jege danañ la woo ne la lii moo ci xew insha allah mais dafa mel na ngay ragal vaar de non non man du ma sëriñu sëriñu vaar parce que comme ni ma la koy waxee man surtout maam alaaji Abdoulaye Niass la ñun dañ ñoo programme yi démb tey doog a ñëw maam alaaji bi mu demee Màkka Euh, ànd ak sëriñ Aliou Fane Cissé ca jaamal defe naa ne jaamal képp kuy borom xam-xam ñàkkul ne jaar nga fa wala sa mbokk jaar na fa ba mu ànd moom ba ànduñ sax dañoo dajee màkk Aliou Fane nee ne bépp palaasu ñaanukaay buñ dem day dégg maam alaaji di ñaan rabbi habli zurri rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan di ñaan yow yàlla yàlla nga ma may njaboot gu teey njaboot gu barkeel njaboot gu sell kon man surtout maam alaaji Abdoulaye du ma sëriñu vaar lépp lu may wax lu ma teg sama bët lay doon. dañuy yem foofu ci kombaa boobu ñu continuer ci mag ak rak war a bëri tey jii ñu gis ne rëg-rëg sonal na Sa lool fu Sa Thiès tourné gis rëg ci wetam bu koy diaboliser di ko sonal combat boobu. combat boobu tamit lu ñu ci yàlla wan mooy euh, rëg-rëg dafa gën a pare Sa ci mystiquement Sa Thiès moom xam naa ne bu bëggee gën a gañe combat bi moom dana ko jaral ba kanam bi. waaye fii may wax ak yow rëg-rëg dafa gën a pare saa ci junne yoon a koo pare ñaare ñett junne yoon daf ko gën a pare loolu moo waral ñeme gi mu ko ñeme am na tim fu mu ko ba tax saa Thiès waxam bari ah, rëg dafa am fu mu jekkoo am na fu mu jekku saa Thiès moo tax saa Thiès waxam bari kon daal lu ma déggee dafay mel ni Balla Gaye ak Sa Thiès nañ gën a taxaw nañ gën a taxawuwaat rawatina Sa Thiès Sa Thiès moom ni ñu ko jekkoo dafa ëpp ñoom ñaar dañoo war a gën a defaru mais rawatina Sa waaw parce que mbër mi muy bëreek dafa am gàllaaj war nañu ko te guddi yi tamit am na fu mu ko jekku moom itamit jekku goo xam ne Sa Thiès bu na bu kiiwul rek bu gënta bu gënta defaruwaat rek mën na am jël boo xam ne kenn mosu ko ko daan ci ci làmb ji maanaam Sa kon dafa war a jóg jógaat parce que gis nañ ne Sa Thiès euh, mi ngi wax ne fu mu jàppale rek daanu kon wax jooju boo ko déggee lu mu lay def ah guddi du guddi yii de Sa Thiès jekku nañ ko de waaw jekku nañ ko bu baax a baax loolu daal loolu daal mën nañ ko ci jekku nañ ko jekku nañ ko jekku nañ ko lool jekkuñ ko sax jekku ndànk jekku nañ ko lool lool lool lool ci combat bi waaw. dinañ ñëwaat ci combat bi mais dañ lay laaj maanaam danay gis ñu bari duñu woo naan ki nga jëli woon moom mooy kan lan mooy secret bi yan façon ñaan ngay ñaan maanaam dafa am lu wutale yeneen sëriñ yi wala. waaw secret bi mooy sant yàlla xam nga comme ni ma koy waxee ñun yàlla daf ñoo dimbale nit ñi dimbalee mooy dañoo bootu ci ginnaaw ay kilifa te tey kenn ku ci nekk boo sañoon bokk ci famille maam El du Abdoulaye ñas ñun tey buñ ñëwoon toog nit am soxla boo ñëwee buñ la tibbalee suuf jox la yàlla faj soxla ba buñ boo tàllalee ñi ñaanal la yàlla faj soxla ba te bisam bise ngi ñëw ci bis yi comme keroog ni ma ko waxee ma jéggalu foofu am na ñu nekk di wax bise ngi ñëw kenn dootul wax tey bëri na ñoo doon gis tey àdduna bi di leen ran tey boo demee seen kër yi doo fekk picc ñun nag dañoo yor loo xam ne moo njëkk mooy mujj loo xam ne lu wér la suñ maam yi bàyyi ñu ko maam alaaji Abdoulaye Niass suñ maam xalifatul haaji Mouhamad suñ maam cheikhul islam Baye Niass suñ maam alaaji Amadou Niass ba si suñu woy jur loolu nag ala kulli xaalin loolu mooy gën bi jóg moo tax kuñ jëflante da nga ko kontaan mën noo toog te duñ waxtaan ci mbirum xam-xam bi xamante ni moo jëm ci euh, maanaam rab parce que ñu bëri ba dañuy woo naanoo ki nga toogaloon li mu wax daf noo intéressé mooy mbirum faj rab maanaam dañuy nekk ci néegu sëy du mën a am doom am ñoo xamante tey yéen nii dañuy bëgg jëkkër mën ñoo ko am ci côté yëpp. waaw rab ñun comme ni ma ko waxee rek rab defe naa ne wax naa ci waxati ci rab dafa sonal ñëpp rab moom. Euh, jàngoor yi bu doon téeméer la juróom-ñeent fukk yi juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yëpp rab la te nit ñi ba léegi xàmmeewuñu rab rab xàmmeewuñ cat xàmmeewuñ xàmmeewuñ liggéey tey mbiram jigéen comme ni ma ko waxee mbiram jigéen tey jigéen ju taxaw bañ a am jëkkër moo xam góor ñi di lay ñëwal di wax te du ñëwaat wallahi loolu li ma ci am ci ay euh, lu ma ci faj ci ay soxla ñu ko doon compté fi la ñuy fanaan billaahi wallahi talla dañ ci yor secret yu wér yoo xam ne dañ ko jëlee ci suñ maam ba tey ci mbirum bayra waaw bayra moom defe naa ne comme ni ma ko bayra dañ ciy liggéeyu am ama am solo ndax defe naa ne rab yëpp tey boo xoolee euh, bukki moo ci ëpp bayra ñin nag bayra ba ñuy liggéey ci deru bukki lañ koy liggéey jox la nga takku incha allahu fépp foo dem wala fépp foo nekk doomu aadama yi dañ la dañ la dañ la xam te dañ la bëgg parfois nga gis kuy jaay marché bi taxaw te pourtant day lan problème bi a jàll. waaw xam nga nit ñi dañoo wutee ci defaru tey place ni ñu ciy sonnee luyee ko ni ñu ciy sonnee euh, def ci marchandise noonu nga war a sonnee ci def ci loo xam ne doomu aadama yi ci boppam yàlla dina leen tàggat ñëw ci place tey mën nga gis ñaari place yu dajee yu yu dend kii lii lay jaay kii lii lay jaay mais ka gën a cher lay nit ñi di demal ci ku gën a yomb lañ koy waral nag mooy ka gën a ka gën a cher dafa am ginnaaw dafa am ñaam Bayra Njaay lu am la. ñun dañ koy liggéey ci leket ñi bëgg a tukki bëri na ñi di jaar ci gaal yi ñi di jaar ci jaww bu demee ba foofu bëgg liggéey duñ ko mën wala bëgg am këyit duñ ko mën lan mooy problème bi. waa ñaanlu rek euh, ñaanlu rek ñaan moom sëñ bi mooy fekk lu nar a jafe nga ñaan ci yàlla yombal ko ñaan moom lépp lu mënut amut ci mim ci mim réew te olof Njaay daf ne suuf bu sutantee dañ koo jal ñaan moom képp kum ne ci yow. bépp bunt boo fëgg yàlla tijji ko moo xam nga ne fii moo xam nga ne nga ne bitim réew. maanaam faaw ñu jóg suñu bopp di ñaan mënta ñàkk faaw ñu jóg suñu bopp di ñaanlu di sonn ci suñuy bopp wallaahi te fan yee dama wax benn wax ndeysaan am ñu ciy wax mais dañoo xamut man tey dañ ma programme mu njëkk ñëw dama jugee gàmmu am ay gàllankoor yu ma gis. Euh, gàllankoor yi mooy sama oto yàlla dogal mu këpp daf sog afaan nga ma wax sax man dégg naa lu mel noonu ñu ne Cheikh Ahmed Khalifa oto otom dafa këpp waaw pare kenn gaañoo ci kenn deewoo ci non non kenn kenn xoosuwu ci sax mais li may wax mooy képp ku pare pour dal sama kaw yow say mbokk nañ la gasal nañ la gasal bàmmeel ba pare wallahi billahi wallahi tallahi képp ku pare pour dal sama kaw sa mbokk nañ la utal càngaay nañ la gësal bàmmeel ba pare. lu waral lool. coow yu bari na parce que comme comme ni ma comme ni ma koy waxee rek euh, yenn saa yi nga wax loo xam ne am na ñoo xam ne du leen arrangé mais man yàlla laa fi nekkal dëgg laa fi nekkal. mais wax la arrangé wul ce que jar na kenn dal aussi. benn jour dama am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci internet bi taxamuñ dara seen maam yi defuñ fi dara seen baay yi defuñ fi dara ñoom ci boppam bu ñuy wax yow da ngay toog yow mi xam da ngay xam ne ñii. li ñuy wax du luñ maîtriser du luñ xam loola coow li bari woon na ci mais ñun xaftal dañoo yóbbu ñun dañoo am digal ci li ñuy def moo tax ma ne képp ku yaakaar ne képp ku yaakaar ne neen lañ toogee yaa ngi nax sa bopp. dafa mel ni wax ji dafa am ñu ko moom. mais nag foofu nag foofu nag laa ci mën a yem. ñu jàll ci leneen incha allah. ñu jàll ci leneen. te jii nii euh, boo doon may askan bi ci ay quelques secrets yoo xam ne dinañ ko mën a jëriñoo lool leen di may. waaw ñi gën a ñu gën a ñu gën a ñu gën a fonk suñu bopp gën a fonk suñu bopp ci kurus gën a fonk suñu bopp ci sellal parce que doomu aadama dafa am yu koy tëj yooyu mooy yàlla bokk na ci mooy yàlla danay tëj doomu aadama rab liggéey danay tëj doomu aadama rab danay tëj doomu aadama cat danay tëj doomu aadama moo tax ndaw ñi première chose mooy nañ gën a fonk seen bopp fa na gën gën a fonk jaamu yàlla loolu daal mooy secret bi njëkk mooy bi mooy bu mujj. sa dernier kàddu. waaw ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm sama waajur wu góor muy sëriñ maam As Ñas ci Kaffrine maa ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool di gërëm ñi may yàlla di boole ci wàllu ñaan. defe naa ne nit ñi xam nañ fu dara nekk ak fu dara nekkul ñin amatuñ sax jot boo xam ne dañuy toog tout le temps ñuy wax mais yenn saa yi nag. ngeen ñëw force ñu wala ngeen wañ suñu loxo waaye doomu aadama yi ñuy jëflante xam nañ kon yal na yàlla def jàmm sa site bii yal na lekk mboolem site te loola ñu ngi koy ñaan ci làmmiñ ñi ngi koy ñaan ci kurus te incha allah bi hawlillahi wa quwwati da nga ci teg sa bët yal yàlla faj aajo yëpp du moo di ne bitim réew yal na leen yàlla defal jàmm man ñoom samay waay leen tout le temps ma wax ko samay waay leen samay lépp leen parce que képp ku ma fa yàlla booleeg da ngay kontaan yal na yàlla euh, defar mbir yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi